di rafetlu ndaje bi nga xamee ne def nañ ko tey mu doon euh, ndaje ba nga xamee ne que pour euh, def évaluation préparation màggal Serigne Sayibu nga xamee ne que ñoo ngi koy jàpp juróomi fan ci euh, koor gi service yëpp yi nga xamee ne mooy service état teew nañ collectivité territoriale bi aussi teew na aussi euh, li nga xamee ne que mooy comité d'organisation bi pour que ñu mën a euh, xool fan nañu toll ci liggéey bi par rapport ak euh, engagement yi nga xamee ne que jëloon nañ ko ci réunion bi ñu amoon Diourbel muy réunion CRD bi ñu waxtaanee rek secteur yëpp maanaam lépp yu jëm ci sécurité yu jëm ci assainissement lu jëm si hydraulique lu jëm si euh, hygiène santé muy aussi euh, élevage ak communication commerce ak yeneen secteurs yëpp vraiment euh, gis nañ ne que pratiquement lépp li nga xame ne que mooy engagement yi ñu yi nga xame ne service technique yi jëloon nañ ko satisfaire nañ ko wala ñoo ngi nekk en cours Euh, nga xamee ne que comme fi mu nekk nii am na ya nga xam ne liggéey yu ñu dese euh, services yi ñoo ngi siy taxaw pour que vraiment euh, balaa bës bi lépp mën a yemb incha allah e am nañ si yaakaar bu baax parce que service yëpp yi nga xamee ne que ñoom ñoo fi teew gis nañ ne wane nañ bu baax pas-pas bu mat sëkk et également engagement bu rëy pour mën a vraiment satisfaire l'ensemble lii nga xamee ne que yëpp mooy. demande yi nga xamee ne que moom nañu def le comité bi defoon pour que ñu jàppale si ñuy rafetlu loolu it euh, di ñaan yàlla rek nag euh, yàlla may ñu kàttan pour que ñu mën a mottali loolu yëpp ba bës ba lépp yemb. Euh, am na ay service ya nga xame ne jotuñu teew ñenn ñi dañu am ay gàllankoor lu si demee ni service commerce benn nit moo fa nekk. dafa am benn tolof-tolof ba nga xamee ne que moo ko yóbbu dakaar loolu moo tax euh, tey teewul euh, yeneen service yi c'est au niveau régional nañu nekk et ñooñu quelque que soit alpha ak lu mu mënti doon dinañ jël information bi nga xamee ne que ñoom nañ ko war a kii ñu rappeler ko et ñu suivre ko euh, réunion d'évaluation bi du du du ne dañuy dañuy def évaluation bi rek après dem tëddi dañuy continuer di def le suivi si question yi nga xamee ne que des na mais également di def le suivi même yi nga xamee ne que des nañu ba pare donc dañuy suivre ensemble bi nga xamee ne que moom la service yi war a kii autorité administrative yi dañuy suivre mais aussi service yi nga xamee ne que aussi chef de service yi ñoo ñoo ngi nii teew dañuy def aussi le suivi en rapport avec le comité de de d' organisation donc pour dire que ñun ñëpp nii bu ñu suivre defe naa dinañ mën a am résultat yi nga xamee ne que moom nañu bëgg incha allah di profiter ci occasion bi pour euh, vraiment euh, remercier service yi par rapport ak seen taxawaay ah également remercier la collectivité territoriale muy la mairie de de Touba Mosquée par rapport aussi ak taxawaayam euh, si événement religieux yi nga xame ne que chaque fois dinañ jëf lépp li ñu mën pour que vraiment mu am une parfaite réussite ci li nga xamee ne que mooy organisation bi. loolu ci ndaje ndaje bu am solo bi nga xam ne doon nañ ko def tey ndax mooy ndaje mu mujj ci ndaje yi def ngir waaj ngir waajal màggal màggal gi te mel na ne eh, liñ tënkoon seere seere bi yëpp ci soxla yoo xam ne comité bi amoon na ko mel na ne am nañ ci xel dal bu baax a baax ndax mel na ne poñ bu ñu càmbar nañ ko saytu nañ ko waaye waaye am nañ yaakaar ne eh, li li si màggal gi xëy na lu ci lu ci motati dana dana mat. Euh, loolu te engagement yi yi nga xam ne jëla jëlaat nañ ko fii loolu gën na ko gën na ko gën naa tax ñu gën am yaakaar kon ñi ngi sant euh, préfet ak euh, ak sous ak chef de chef de yëpp di ñaan rek sunu moom defal defal lañ tawfeex ba li ñu séntu ci ñoom lépp fekk màgg lépp lépp mën a yem waaw di santaan nag mbokki taalibe bi yëpp rawatina rawatina comité d'organisation bi nga xam nag liggéey bi yëpp ñu ñoo ko ñoo ko waajal te di ko saytu. waaw xam nga engagement moom ba xasee am damay damay ragal ne yéen yéen ji am na waaye nag euh, dañu bëgg toujours rek ñu leen di gën a gën a soññi ngir gën a ñaax ngir ñu mën a ngir ngir engagement yooyu ñu gën cee bàyyi xel baax a baax ndax soññi moom dañoo waaxu si baax na baax na ci kuy dox waaye teewul na am nañ ci xel mu daal ndax. Euh, wax dëgg màgg màggal yi passé yëpp rek mooy mooy taxit yéen ñëw ñu am ci xel mu daal waaye dañ leen dañ leen gën a ñaax dañ leen soññ rek ngir nag kenn ku ne daf dafa yitte ba nga xam ne rek engagement yi nga jëloon moom moom boo mënti def lépp it nga def sa kam kàttan ba ñu xam ne la jot sax mu xëy na lépp lépp baax na yàlla yàlla yàlla rek moo ko mën sax te sax defu ko nag